am xel fu mu royee daal asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu salaamun ala man ittabaxa rasul wa amana billahi wa bil yawmil axir wa man ittasafa sifatihim min attaabihin ila yawmi ddin wa baxdu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa ñu ngi nuyu mbooloo mi teew fii ñëpp daf leen ziar di jiital ci néew bi nuyu buñ ko dañ koy ñaanal Cheikh Mouhamadou buñ ko xam fépp fa am lu teew sañ naa balaa yëkkati kàddoom ñaanal Cheikh Mouhamadou buñ ko xam muy xaa idul muridin sunu borom doole ko fee yàggal kàttanal ko may ko wér. ba li mu yéene yoonu Serigne Touba yi mu def ci lu kawe njortam te loolu ñu ko ñaanal dañuy ñaanal Serigne Amdi Fall Modou Mbenda mii xalifa am Cheikh Ibrahima di ñaan seeni fan gudd te wér ak mboolem seenu njaboot ak mboolem taalib yëpp waaye gannaaw loolu ziyaar boobu ak ñaan boobu ñu ñaanal Cheikh Mouhamadou Moustapha ñu ngi koy teg ci loxol ndawam di fi jóge léegi di Cheikh Mouhamadou Bassirou Moussa Diop Khadi nga xam ni moo fi teewoon léegi teewaayu Cheikh Mouhamadou Moustapha ñu am mbégte bu baax ci teewam gi teew fii ndax xam nañ lu mu fi représenté waaye gannaaw loolu. ñu nuyu suñu mbokk yi nag di suñuy kilifa Serigne Mbacke Ngonda moom Serigne Ngonda Fall moom Serigne Mbacke Fall moom Cheikh Ibrahima nga xam ni dara jàll gi moom moo teew teewaayu Serigne Mbacke Fall fii tey. tey jii su fekkoon keneen na ko wootee pour sëñ Seexuna mii buy dem foofa duñu ko bàyyi ñoo koy àndandoo waaye di ñaanal tamit ak nuyu sunu xalifa sëriñ Seex Fall moom seen koy sëñ Seex Fall bu góor ak mbooleem ñi ne baas bi ñëpp sant Mbàkke ak Fall ñu ngi leen di ziar baax a baax gannaaw loolu ñu amaan mbégte di ñëwaat fii ci Taïba Mbaye teewoon nañ fi daaw am luñ fi ñaanoon suñu borom may ñu ko dëgg la wala ñu teewaat fi ren di ñaanaat suñu borom may ñu lu ëpp la ñu mayoon daaw ndax ko santoon daaw mu doy lañu ren kon sañ nañoo taxaw santaat sëñ Seexuna ñu ngi amaat mbégte ci wuy si gi ñu la wuy si waat ci sa biiri bokk ci wàllu ndey waaye sa biiri bokk ci wàllu kër baay ñoom ñëpp ñoo teew fii boo fi ni faal wala nga woo ko mu ni faal rek xamal looloo ko tax a jóg jàpp naa ni yi nga xam ni suñu kilifa dañoo duggoon ci seeni biir kër wala ci seeni biir kër maam tànn fa ñu mel ni soxna maam Ami Ñang yaa Ami Ñang ñii di wajuru sëñ seexu naa tey war na ku ne delloo fa nga jóge woon taxawal fa bis bu mel nii ndax loolu mooy delloo njukkal Cheikh tànt bi buñ nee la Cheikh Ibra Fall lañ koy defal da nga koy nangu ndax Cheikh Ibra nawul dafa yàgg dafa rëy loo wooteel Cheikh Ibra woote ak pos ko xam ku fa ñëw sam xel lu def ci Cheikh Ibra ndax culture nga wax culture nag buñ ko woowee buñ ko wootee ñeewaa nañ ko gis kuy woote bis na dem fekk ko ca bis ba fekk ko mu toog suuf saxaaru la xabar neewaana ku woote bis bu mel nii da dem fekk ko mu toog fa suuf jël ñam woote leen ca kaw loolu bu dul culture Cheikh Ibra kon foofu mu ne culture Cheikh Ibra waaye nag buñ fi doon toog toogaay metti na yàgg na trop waaye buñ fi doon toog ba suba yaa ñu ko jaral ndax ñun dañoo bokk génération xamante bu baax a baax moo tax bu ñu yàkkamti muy dëkk bu ñu laay ndax bu ñu jógee fi tamit dañuy ñelewe rek asalaatu xayrun min an nawm lii ci asalaatu la bokk ndax am na léegi jàngkat yi am na lu ñu waxoon يا أيها الذين آمنوا صلوا صلوا عليه وسلموا تسليما baat boobu mooy def lu baax rek baatu salaat boobu kenn firé du def lu baax tànk bu mel ni nag pour tàngalee pour tàngalee Cheikh Ibrahima ñun Baye Fall yi jamono jii war nañu xëndewoo leneen lu dul ba mu fullee jaami ja te boobu mu yéegee ci dara da te am na làkk ñuy naaw doo fekk baas bu mel nii la lamp yi rafet na décoration bi rafet waaye li fi def nag li fi def jékki-jékki lu taxaw nii fi def Cheikh Ibrahima Fall ci diine te kenn mënu ko cee génn ma fàttali tuuti jàngkat ma fàttali leen fàttali sama bopp seeni xel moo ko waaye xam ngeen bu baax baax ni sunu borom koy def du xool logique borom mu xool raison def yooyu loolu jàngate xam nañ bu baax baax loolu yonente bu yàlla ma sa yónni àdduna bi mu la yónni dafa fekk saw nit mel noo xam ni dañ ko ndamoo wala jàpp ni dañ koo jàppoon ni jàpp ne ak ak yi ak defar la rek ak yàq la suñu borom indi contraire yonent booba mu taxaw contre leen contre carré li ma wax bu ko dañ ko gis waaye nag li si xawaat andi mu bokk ci diine te kenn ko cee mën a génne sunu ko yónni Seydina Moussa alayhi salaam diggante Seydina Xodar waaye dafa ñëw am lu mu ko wax ba mu ko waxee la ko wax Xodar tegal ko benn sàrt sàrt ba ko mu lem ko ba mu teg suñu borom lem loolu ba mu yegg mu teg dinaa xaar mu ngi jamono fa wajadaa xabdan min xibaadinaa aataynaahu rahmatan min وحلمناه من لدنا حلما kooku mooy Seydina Soda kon lëxoo yooyu ma doon wax ak lëxum yi ak bihi yi ma lay wax ak bikum yi ak bikum na yi ak ka ak naa yooyu ngay gis ci biir alquran suñu borom ci lay wax ne bëgg a wax ci dum lenn saa yaakaar loo yore bi ne boo ménk rek jàppale ak li Muhammad sallallahu alayhi wa mu ne innaa arsalnaa ilayka xam ne moom moom kaaf gi Moussa dani Seydina Aboubakar hal attabi'uka alaa an tu'allimanii mimmaa ullimta rushdaa waaw ndax duma la topp nga xamal ma ci li nga xam mu ne ko li ma xam mënoo tee am ndax yow lan tastatii'a ma'iya sabraa yow mënoo muñ li xam li ma am foog nga am patience jot te amoo patience ndax loo xamul la da koy jéem a laaj ah rajo bisimilah ñu mu ne ko bu lu ma def moo ko laaj fala tasalni an shay'in hatta unzila laka min dhikra bu ma laaj man la lii nii la. waaw woowu yoon na àgg na ñeenti laaj ñu taxale ko fan talaxa xataa isaa rakiba fan talaxa xataa isaa lafiya fan talaxa xataa isaa ataya abla xariya fan talaxa xataa isaa isaa rakiba mooy ama safina fan talaxa xataa isaa ataya mooy wa amal xulaam fanfalaxa xata ida ataya mooy wa amal jida ci dëng rek mu jeex mu ni ko bi mu ko ñëkkee laaj Moussa dani in sa'altuka an shay'in ba'daha fala tusaahibni bu ma laajatee benn laaj bu ñu am reen fii loolu déglu histoire boobu jàllul ndax amuloo benn résultat suñu borom lem ko teg ñaa xaar bu ci demoon mbokk yi lu mot a bàyyi xel na mi ngi noonu bala maa jàll sax maa ngi siyaar suñu mbokk yi waa kër Serigne Mor Diakhaté di kenn ji tànga mi Cheikh Ibra Fall yi sëñ Moussa Ka ne woon na sëriñ mën a jama ci la lu ñer ci soowam laa bu faal mbaalit la sëñ Moussa Ka moo waxoon loolu sëñ Mamada sëñ Mamada te loolu bari na ci ay kàngam bi Cheikh yoo xam ni Cheikh Ibra ñu def la ñu nekk sax léegi ci ëpp dañoo dem seen yoon noonu ñoom ko lañu yor ngir àdduna soof bu leen soof kon sëñ Cerna bi fu mel nii boo ko wootalee Cheikh am na solo lool ñu xam Cheikh Ibrahima am na benn waykat boo xam ni Cheikh Samba Diarra Mbaye lañ koy wax. fan yi damaa dox ba dajeeg ay bayit ay ay abyaat yu ma def ci Cheikh Ibra Fall waaye mbir mi ñu ko bind ci arab mbir dafa xaw a damm ndax arab moom damm ko dafa yoon saa yoo saa yoo ko dammee rek damm ko ma jël ko bindaat ko ba mu jekk a jubbante moom. raw na ak maasam te deefu ko jot Bamba ko seppi Bamba da ko seppi wala ko seppi ñoom Baye Moussa Seck mag ñi Bamba da ko seppi wala ko seppi yaram bi naan faala ina suyuxa ina suyuxa wa asxaaba suyuxi maan lamboo nañ ak yow nga daane yaram bi naan faala mooy sëriñ si ak seen taalibe yi ñoom ñëpp loolu lañ jéem a ak yow ba da nga leen mu ni waaye si wàllu mbakki yii na waa mbakki moom bokkuñ ci ndax ñun ñoom saa daat maa abadan nga xam ne doo ñoom du ñëw doo ñoom du ñëw yaram dina am faala ki bëgg a taxaw ak ki bëgg a toog du benn Cheikh Ibrahima naa ma ne moom ni dañoo taxaw ñoom waaye kenn fa jóg moom suuf tilka daarul axira najxaluha lillazina laa yuriduna xulwan fi l ard wala fasada wal xaaqibatu lil muttaqin way way wu ama am solo woo xam ni sëñ Balla sëñ Balla nañ koy siyaar bu baax mu ni sax Samba Diarra Mbaye nee na jami bu jiili mooy mbooleem sa maas ñi nga xam ni maasoo na yow ci ay at wala ngi jéem a def lu baax wala ñi ngi jéem a tedd teddlu mooy fii tuuti moo fii karam yi nee naw yow nga daan yaaram bi naam faala kullu sawa diina mooy ñu ñuul ñëpp wala bii daana ak ñu weex ñi maxsarahum boole seen nee na wax lii ci yow yaaram bi faala mu ni wa baabu baytika sa buntu kër maftuhun li qaasidi yow Cheikh Ibrahima Fall sa buntu kër képp ku ko dëgmal xamal ne buntu ba tëjuwul nee da koo ubbil mboolee ñi xam ni dañoo dëgmal buntu kër gi ngeen di wut si lu nee na da koy xaraf daal di génn rek daal di biir yaaram bi naam faaraa in xaala bayfun bayfun salaamun hinda baabika taa may yaa di saafante ak moom seex bi naam faalaa moom di leen ziar bu baax di leen jaajëfal bu baax tey jéggalu ci jotaay bu yàgg bi kàddu yi may yëkkati nag kàddu yi sëriñ Cheikh Baye Fall mii moom sëriñ Mbacke Fall moom sëriñ Modou Mbenda muy kàddu yi sëriñ Amdi Fall Modou Mbenda di xalif général de Baye Fall mu jëm ci mbooleem njaboot gi fi teew kàddu yi tegu ci loxol sëriñ Cheikhouna moom sëriñ Abdourahim mii nga xam ne moom la ñu fekk si mu teg ko ci loxol kilifaam yu baax yii fi teew tambalam Serigne Cheikh Baye ngour ak mbolam jabo ma Cheikh Baye Fall ñu fi teew xam nañ ne jotaay bi xatna ndax xataay jotay bi motax dañuy wax ku am gën tëraay man mi bi exi programme bima amé won fi te Serigne Cheikhouna santoon santon mako moy waxtana Serigne bakay Khady Diop loolu ko fi waye dama ko dey ne man ci ñi wara dal lima warono waxtane ci serigne mbacke Fall xeri Jóob da nga santone mako ci jamono bi bepp ñukay koy duggal na naa ko ci kaddu yu bàyyi Moustapha Seck lolu ben la won ci samay kaddu ci jotaay lu kaddu yi ci dess moy daayira Jazboul mourid moy daayira bi lëkkale mbollem sëti mam Cheikh Ibrahima Fall yeb serigne modam bi yassine jiite ko te ñu ko ñom ñepp itam seen kaddu man lañu ko jox kaddu itam duggalat na ko ci kaddu serigne Cheikh Baye baye serigne bi nak moma ma sant ne ma bëggoon kàddu yi bàyyi ci ci sëriñ Amdi Fall du Mbend nga yëkkati te lool it nii moo ko sante noonu la ma ko sëriñ bi di sante moo xam biir réew mi ak ci bitim réew fu ma dajee ak ñoom lu ëpp ci kàddu yi bàyyi ko ci maam Cheikh Ibrahima Fall léeg-léeg ñoom bu ma fa nekkee danañ jël kàddu ko jox ma ngir ma yëkkati loolu nag du xam-xam du du du du du man man du dara waaye xëy na bëgg maa dimbali rek a tax kon kaddu yi ma yëkëti mi ngi bàyyi koo ci ki fi nekkal maam Cheikh Ibrahima Fall la ca jiitu nag te Serigne Cheikh Baye Fall mi wax ko bi day nee na mi ngi sant bu baax Serigne Cheikh Ibrahima Fall ndax bis bi ba mu ko tàmbalee ba tey ci amul lenn lu mu ciy def te du dana njëkk fi moom laaj ko ci ndigal sàkk ci ñaan maa ngi fàttaliku daaw bi muy ñëw ci sëñ am ni mu Mbenn fa la ma fekk fekk na ko Thiès ci gàmmu ren jii ku ne dégg na kaddu serigne dam sooda meilleur kaddu mu wax ci turu serigne bi ci bis bi te serigne am ni mënu beddak tay ji bu serigne ni kenn ci njabotam muy serigne Cheikh Baye Fall mi nako demal teewal ma ci bis ba nga yëkkatal ma ay kaddu ci cant ki ngërëm tegal mako ci loxol serigne cheikhuna kon serigne am di Fall Modou Mbenda mi mam Cheikh Ibrahima Fall moy sant serigne cheikhuna mi ci taxaway bi ndax li mom lako defal ndax fooy nek nekkal fa Cheikh Ibrahima mom ko nekkal lu waaye di woote ci yoon wi di ko wooteel maam Cheikh Ibrahima Fall moom nga koy wooteel ndax moom mooy maam Cheikh Ibrahima Fall te fii ñu koy wootee tam mooy dëkkam ndax fii la ay maamam dëkk Baye Moustapha wala kenn ci ñi fi jël kàddu wax nañ ko léegi kon nag sëriñ bi nee na mi ngi leen di sant bu baax te di leen gërëm mi ngi leen di ñaanal bu baax a baax itam mi ngi am mbégte bu baax ci lii nga xam ne fan yi yëpp yéen nga koy taxawu fii te tey ngeen xëyee ko ba te bokk yëpp teew ndax li gën a rafet rek te sëriñ bëggal ko boppam mooy njaboot ñëpp a fi teew la ko tàmbale ci kër Seex Mudu Saafaan ba ci kër sëñ Bunda Saa Bigé kenn desu la ko tàmbale ci kër maam Fat Fall Cheikh ba ci kër maam Ummi Fall kenn desu mbooleem ñu toppoon maam Cheikh Ibrahima Fall gis naa fi waa Kàddi Njaay gis naa fi waa kër Mut Njaay Njaay gis naa fi léegi waa kër sëñ Mor Dia Njar délégation bi bàyyi ko nañ Njar te ñoom bokk nañ ci ñi dara jaale bis bi kon mbooleem ña def ña Seex Ibra defaroon seeni maam moo xam ña njëkk jébbalu ba ci ñi nga xam ne sëñ Mour Moussa Fall leen wacc gannaaw Cheikh rafa ken kenn desul kon da fay melne bis bi la ci sëriñ Seexuna bëggoon ba taxoon mu woote ko amna ko ci bu wéré wéré wéré te moy ngeureumal maam Cheikh Ibrahima Fall di maam kon nak sëriñ bi neena na sëriñ Amdi Fall Modou benn nee na moo ngi sant bu baax te di leen jaajëfal te di te di rafetlu bu baaxa baax itam teewaay yi fi ak kilifa yi fi teew ci turu Cheikh mohammedul Muntaxa muy sëriñ basirou mbakem sëriñ Abdou Khadir te kàddu yi rafet lool mu waxtaan ci maam Cheikh Ibrahima Fall waaye soññee bu baax ci turu sëñ Muntaxa kon sëriñ am di day bëgg na na ndax lépp lu sag lu sag ci yoon wi rek moom moom la moo moo mooy ab sag kon nag sëriñ Seexu naa lii nga def tey defal ko sa maam Cheikh defal ko sa maam Cheikh Modou Moustapha Fall defal ko sa wajuro Cheikh Abdou Rahim Fall sëriñ Amdi Fall Modou mel na nga ko defal ndax firnde li mooy tey jii moom mii di Cheikh Ibrahima Fall Cheikh Modou Moustapha Fall la ko bàyyam tudde muy sëñ Mour Fall Mbène delloo si waat nga xar kanamu démb nag ndax bis bii ñaar ñi ngi ko dara jaale la nga ci jublu rek mooy ngir ñu fàttaliku leen xam na Serigne Mbacke doo dooy maam Cheikh Ibrahima Fall la waaye xam na Serigne Mor ja sëñ Mor Janjarit ci defaru maam Cheikh Ibrahima Fall la bokk nga dara jaale leen bis bi njabootu sëñ Mbacke xarit Jóob a sëñ fi sëñ Mbacke Ngonda boo ko tuddee yóbbaale na ñëpp tey sëñ Xaadim Fall gis naa ko léegi muy génn kon ñëpp teew nañu kon delloo suwaar nga xar kanamu démb ngir lan te bàyyi Moustapha Seck lii mu wax ci sëñ Mbàkke xarit Jóob doy na sëkk ndax sa kër ñëpp benn lañu ñëpp ay bokk lañu la sëñ Mbàkke xarit Jóob am ci wéyjuramu jigéen loolee la bokk ak sëñ Mortala Fall sëñ sëñ sëñ sëñ Aliou Fall Mbaor loolee la bokk ak sëñ Bassirou Fall Awa Jaxate seen ñetti wéyjur yu jigéen ngeen bokk benn dëkk bu leen maam Cheikh Ibrahima Fall di la muy bànd jox maam mu jaan jóoba ko njëkk a jox maam awa jaxatu jóob Cheikh Ibra dëkkoo ko 1895 sëriñ Bassirou Fall gën a jamono tasi neen gàññi mu delluwaat mband ñu jox ko maam maam Faat Jóob Sayer dooy maam Sayer Jóob maam mu jaan jóoba ko ko joxaat de Cheikh Ibra taawloo ci sëriñ Mor Talla Fall teg ci sëñ Aliou Fall Mbawor teg sa sëñ Omar Fall ak sëñ Baara Fall ak soxna Aminta Fall ba sëñ Bay Jaxate yor mu delluwaat mband ñu ne ko Assane bàyyi na ci ñaari doomi jigéen ka ñuy wax ko jox taawloo ca 1900 maanaam taawloo ca Assane xarit yóbbu doomi soxna xarit yóbbu teg ca sëñ Mbàkke Fall xarit yóbbu moom nga tudde bis bi teg ca soxna bu safal xarit yóbbu kon ñett ñii ñoo bokk fenn fi ñu bàyyi ko waaye fañ bàyyi ko itam ak sa kër maam maam asusi la ndax ku ne xam ne mbànd jóob ak jëllëru si la ñoo diggal ay tool kon sa maam Seex Rafal ku xamoon aw jiwu la te na ko moo tax li nga def rek nga war a bis bii ñi ci sawet wet ñëpp xàmmi naa leen ñii say doom yi bàyyi nañu ñii sa seen ñaari maam bokk maam Cheikh Ibrahima bii Baye Mouride suñu Abdou Lahad Fall ngi nii toog doomu Cheikh Modou lay Fall Ndar ku ne xam na ne itam Cheikh Modou Abdoulaye Fall keroog ba mu gënee jamono ca Kaolack 1936 sëñ Abdoulaye Fall Ndar da ko tudde sa maam di Cheikh Modou Moustapha Fall moo ma ko wax kon li fi teew lépp benn la kër Cheikh Ibrahima lépp benn bopp rek kon nag Serigne am Fall moo du benn nee na loola moom moom xolam set na ci bu baax a baax a baax xelam dal na ci ndax xam na ne boole ngeen njaboot bi muy benn te yéen a ngi koy dox te sëñ Seexu naa ku yàgg bëgg lu rafet xam naa ko bu yàgg mën naa wax ne man su ma teewee ci bis bii waruma sax waxtaan dama war a delal ba sax sëriñ Seexu naa mii moo ma njëkk a jàpp ci loxo di ma waxtaan loo ci maam Cheikh Ibrahima Fall te boobu samay at tuuti la booba xamaguma ay télévision ci ay rajo déw ma fenn ci àdduna bi loolu yàgg na te booba tuut tànk la te booba bàyyi nañu mu ne ci wetam di ko bindal ay lettre addiye di ko bindal lu baree baree bare lepp luñ mas a tudde maam Cheikh ibrahim Fall mo seigne tall Ndonga mee toog mo xam ba gédé fune dañ ma nan ngab su loxo bobu xalé la buma démé jox mi mi ko dama nel Cheikh Ibrahima neel loola yàgg kon suma ma fi suma waré jël kaddu sax kilifa yi teew ñom bay Moustapha sek man dama wara tok fi di diglo ko fi tas looloo ma war motax yeguuma buma seigne ma sëñ bi joxutoon kàddu bi barki Cheikh ibrahim Fall du ko yëkki nongi sante bu wër ndax sama yitte jëf moy xam-xam dess loolu motax ngeen di gis Baye Moussa sek ci tele bak di fa gis ay seigne Ndiaga djob ak di fa gis ay seigne Adama sar ku ne mooy lan moy lu way xam ci cheikh rena ko wax ndax ci lañ toll loolu rek ma ñor te bu ngeen fi xamee kenn ku na man na ma cheikh Ibra neena dimbal leen ma ci suba ngeen indi mako wala ma yobale loolu rek ma ñor amul leneen gëstu cheikh Ibra neena mu def ci fek internet ngi ci ngi ngi ngi am rek xam luñ wax ci cheikh Ibra dana fi def da jamono ngi dox ci kanam da nañ ko yitte woon ndax seen mam waxon nako sëñ Abdou Lahad sa bàyyee ko waxoon Cheikh Ibra Fall ne sëñ Modou Ablaye moo ne bay Baye Ibrahima a ko wax fa njëriñ na ko samaam Cheikh Ibra Fall toog fii ne su ngeen doon di yaaram lu ma wax da ngeen ko ndax ci kanam sama dana am solo kon sëñ Moustapha Faty Kane jërëjëf ci kaddu yi sant nañ bu baax a baax kaddu sëriñ Amdi Fall moo du benn daal mu jaar ci doomam ju baax yii di sëriñ seex Fall muy sëriñ seex Baye Fall mu sëñ Mbacke Fall moom moom sëñ Modou Mbenda mooy sëriñ Amdi Fall Modou Penda daal sant na sëriñ Seexuna Fall mii waaye sant na itam mbooleem tudd waa Tayba gépp ci taxawaay ndax fii Seex Ibra yàgg na lool te loolu sëñ Seexuna xam na ko loolu moo waral tey jii bis bi demee nii tudd nañ sëñ Mor ne Tayba mooy sa maam Seex Ibra defal na leen lu ne doy na sëkk ci defar na bokk ci yéen cëppal ko Tayba waaye doy na sëkk jël njaboot tamit tam tàmbalaat bi biir Tayba sëñ Mor ñang kay xanaa lu waay gàtt gàtt xam-xam xam sëñ am di ñang na xam na maam roq yaay ndeyam te maam roqee ak sëñ Ablaye Fall ak sëñ Fallou Fall ñoo bokk maam Fat Fall wadd kon loolu doy na sëkk ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ne mën a su cee dugg ndax jotaay bi xat na waaye daal pour wax ne dëkk bii suufu Cheikh Ibra la te góor yàlla yi fi Cheikh Ibra defar seeni njaboot a ngi nii toog kon xel mën naa dal bu baax a baax donc ndax man maa ko féete ci wàllu baay fi ne nii ndeyam ak baayam dem na sama ndey ak sama baay dem waaye moom nde moom baayam moom la ma bàyyee man man la ko bàyyeel maa fi bàyyam maa fi maa fi magam lu ma ko wax lay lu ma ko wax lay def du ma ko fekk itam ci lu ma ko dul wax lu ma koy dalee sama ndigal lay lay lay déglu saa su nekk fu mu fu mu gën a méttee dama ko fay nattoo waaye dama koy dama koy defal na ma ko bëggee du du du du du gàntu mukk loolu loolu loolu loolu tàggat na ko ci ay rakam sax yi nga xam ne ñoom ñoo gën a ndaw ci ci ci jabar bi ndax bu ma bu ma ko soxlaa bu ma ko soxlaa léegi-léegi ñoom ñooñu laay woo ndax ñoom ñooy ay ndaw ay ndawam yoo ñoo ko war demal man naa ko woo wax ko mu wax jiili Abdou Khadir baa mu wax ko am di baa mu wax ko Modou Fall waaye moom mooy ñëwal boppam joxe ko ni ma ko bëggee ba ma demee ba xam loolu man tamit ma xam ne kilifa la te responsable la ma am nu ma koy dimbalee su ma ko soxlaa bëgg koo bëgg koo woo def kaa tuddal ma doom moo woo Abdou Khadir ba ko démb rek ba ko démb doo nga si mujj ki ma tuddee Seydina Ousmane nooree nii may àndoon nag Mouhamed Rasoulaay baaba ko amoon Ousmane Ali Ousmane moo wee ki ma ko tuddee sëñ Abdou Khadir mi moo ma ko tuddal mu ay bis wala lay toll que dekk dekk fils de sortie fils de sortie hôpital déclaré gu ma ko mairie ma nga nee ka ko jiitu Aliou Mbaye Kortoro. liggéey ba lenn maa ngi ko liggéey ba nag war koo fini fa leen extrait ci ñu bind ay tool yu bari ak ay ferraille kon lépp nga fa qualification bi nga ne ko am qualification boo demee dana liggéey ña ngay ña ngay ña ngay tane porte yi joué di dagg ay feetal joué mosoom yaa ngay seere bu fekkee nag menuisier électricien du du fa dem liggéey te su koy leen la te yi fi kat seetaan lay ko doon ñëw ndax yow ñëwoo yónneewoo dal da nga gën a dal xale ñëwoo yow wusu la ñëwoo déglu la yónneewoo itam waaye bu ñu leen fexeel yëpp su naan ña fa nekk ñi nekkul naan booy seet booy leen fa bàyyi ñëpp ñu ñu fa nekk dafa nekk ñu naan ku ay ouvrier leen day xëy lekk daal day dégg. vraiment ñu jox seen kër ñaar ñoom mais am na ñuy jox am na ñuy defar waaye ñun ay ñoom di xëy seen bi ñëwal leen wala wala réew na jox ko la kaw ñu ñu lekk ba mën a taxaw mais li ngay seen bi yooyu nag yow soo defee te mënoo mënoo mënoo toog nga xam ne yow fan ngeen démarche nga am nga ñëw am soo ñaari junni jox ko seen bi ah wala am sa wala am sa tool ciment jox ko seen bi wala am sa sa sa sa li def ko seen wala nga am seen kër gi sa sa sa soxla kër gi yow def ko seen bi jàpp leen si si mën nga xam ne dañ ko fekkee dañ ko fekkee noonu xam ne kaw ji suñu ñëw mun naa te suñu fu ngeen dem seen liggéey boo fekk dañu ko waaw ñuy ak mu leen koy yéene ak def jën ku la def ñu nga am nañ ko yéene ak def jën ku la def loolu nag kon suñu taxaw wàcc na ñun ñoo ci des la ñuy yéene ah rëy na loolu nag xëy ñu ko kenn ku si doon jàpp yaa jàppal sa bopp sa sa sa bopp fi am lu mu ñu benn lam am lépp lu mu koy def newatu ñëpp ñebe sa ñu ko jëndee ñu ay naqam ay doom yu bàyyam ay ay ay ay ay doom loolu ñëpp ñebe sa yëf ñu yéen kenn yéen ñëpp ñëpp la pour kenn lu xeeb pour kenn lu seetaan da ngeen koy léegi fii da ngeen da ngeen fi dalalee àddi yi di jëm sax sa liggéey man nag benn projet day xaw ci seen bopp laa ko jàpp jiwee seen naa faale ne dinaa la nattuwaat bi nga joxe sa benn jiw bi nga xamante ne dama koy jox seen bi Aliou Fall ak taw bi ñëw ko si jiw bi boobu mel ne leer ak leer nga xam ko suuf in my life. bis bu màgg bu tedd bu kowe bii nga xam ne du bis bu ñu sos bis bu ñu sos la mooy yeesal liggéey Maam Cheikh Ibrahima ba mu ngi dee ne ko boo demee nag mu ko topp tool te ñaan ma ko ba du tey ana dogal saa saa yu mu saaw nag dogalu yàlla ko si sëñ Momar Talla Fall ñoom ba sa kër jóob moom sëñ Mbacke Fall ba la yàlla dogal ma dogal ko ca ma dem demal si yoonu soxla ba mu ngi ji te loola amul woon ay am ndax Baye Moussa Diouf 1995 nee na ma tey daal ne mun tasaar nañ ko saar man it bi ko baax ci jógee njëriñ ñi bi Touba boobu liggéey naa Cheikh Sall ba mu gërëm ma dem naari samp kër nee na ma liggéey ko baal dem na ma liggéey daal di mën a gisul ko man daal ma kii nga tam naari nii la nga jox Cheikh Fall man ma mu tasaan ma ko saan man ma lii ma di ko doon bi ma ko Cheikh Fall di wax boo ko daal li mu sol naa ko jox nee mu subi daal nee mu soloon sol daal di ko jox nii doom na ngeen fonk barab bu tekk ji moo tax suñu bisiru tan bi mu yëkkatee léegi wa islan qawm ibrahim alqawaida min albayti wa ismailan rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim wa bashir rafaala abori abori dal nii ñu àndal nag moom moom ibrahima xalilullah dëgg la bàyyi moo du gay ni ma mun ta baax na ko saan man seen faa ngi na barabu jàkk jii yaa ngi fii comme ni nga di ko si Assane Sarr ak ko si Abdoulaye Sarr Ndar di ko bëgg ko fonk doom nii daal respect. ni kenn mus koo moom ni Tuuba bindoo la la ànd boo mi kenn mus ko yi du benn du benn loolu sama benn faanu commandant bi léegi na fu waaye amul fu ma naan commandant bi la koy léegi nag dinaa ma may ab piyeer piyeer bi nag dinaa la gas dinaa la joxe matériel waaye ko nañ ko transporté man si gën a fay ànd ak taalibe ñu ngi gas teen boobee bañ ko gasee ba mu am benn degré ndox mu bën waaye bëgg bëgg génn ci bitti dalu mbay la ñuy. teen ba toll ci vingt cinq mètres ñu ñëw di maam si Ibrahima Fall teen ba di bënd na waaye mu war bi daal di jël kaalaam bii naka mu ko yor kaala bi dañ ndox mi kon tuuti mu génn bu fanaan ndox mu génn mu yël ko teg ko te eh, eh, doom. léegi nag loolu bëgg nekk yi moo fi daje bëgg nekk yi moo fi daje waaye dana bu ñu ko delloo ba fukki mètre ak juróom te tuuti ñeent tuuti day gën a baax ñu ne ak ay fan ñu jëlee ko loo xam lu tedd la mu dem ba 15 mètres ba léegi ñeent man da ko tàmbalee suuf ba 15 mètres lépp ndox lay doon fu mu nekk dem nañ ko du jëm koo du wàcc te loolu nag li tax na ni xale ko boobu daal am ndox mu nga dund ak teen. mu ñàkk am am ndox nga gasal ko ndox ma bëri waaye ñu bëri ak ma bëri nga delloo ndox la suuf Xaliilu ko fi defal moom doomu Ismaayla muy sam sam balu sam mooy taral taral taral ci la faal kanoon sam sam sam sam sam sam sam dal moo ñu ci jéem bi ci dooru bëri ni ko dalal dalal dalal na dal Xaliilu Laay mën ko bëri kan ridal wa rahmati min Allahi ba di xëy ne bu leen wax sëñ Mbàkke Fall jërëjëf sëñ sëñ bi neena na mu ngi lay sant bu baax dila xamal ne tur sayut yo tuddé nit dom bëgg nga mu yokku te turandoo ku ko xeeb da nga xoolul ci potu nda ak potu was turandoo ku ko xeeb da nga xoolul ci potu nda ak potu was ñom ñaar la jëlé ndo ci mangasé ba mu tek te ben pot bi ko ci defal ndox mu sant benen pot bi ko ci defal ndox ndox du ko jël kon turandoo rek ko waral kon fal sëñ bi neena ngi lay ñaanal sa way juru bu bop wa donon bokum njar beggon señ bi lol di xaritam nga jog jaar ci yoyu tank xamna ni nga mel ak bokk yi xamni nga mel ak njabot gi xamni nga mel ak ñi bokk ci kër gi ba tax xër goga tax nga jëf li nga jëf mo nga lay ñaanal fo bëgg yegg nga fa yegg señ bi neena mo nga lay ñaanal bu baax mo mi khalifam njar mo nga lay ñaanal yalla la fi yalla yagal yalla la yalla gëna dimbali bi ñuy ñew nak mbolo lañu andal mo xamni ñepp kenn ku ci nekk sëñ bi den na ngeen dem wéttali ji sëñ Moodu ndax fii sëñ Moodu rek moo waroon a yor lépp ndax moom mi fi sëñ bi teg doy na fi sëkk ci ak matam akuk taalibeem akuk nangoom ak jëfam ak cir ba mu am ca kër ga waaye nag xër gu sëñ bi xër ci maam Cheikh Ibrahima Fall na ko bàyyim xëre woon looloo tax mu dajale jaboot gépp indi leen fi mu ngi ñaan nag képp ku fi teew yàlla na yàlla faj sa aajo mu ngi siyaar itam waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall yii fi nekk kilifa di ñoo xam ne ay roy waay lañu di ñaan seen yéene ci liggéeyal maam Cheikh Ram Fall yàlla leen ko yàlla yeggal ni ngeen ko bëggee sëñ bi nee na mu ngi sant bu baax noo ngi siyaare suñu xaritu bopp Serif Alwali Maana Ndiaye maa ngi moom daan nañ bokk di fanaan ci gàmmu ca Tëngéej muy sama xaritu benn bakket baax lool seet si na ma ay yoon di ñaan yàlla yàlla dolli sa martaba saabihoo ilal maxfirati mi rabbikum wa jannatin arduha dikkee sëñ Mor Dia dafa yëkkati fas wu tudd barakatu ak benn fas bu tudd jëfi yàlla jël fas wa tudd jëfi yàlla jox ko sëñ Modou Moustapha jël fas wa tudd barakatu jox ko sëñ ja doomam ni leen dem leen ba Mbawar ngeen wàññi ko ba ñu jógee Mbawar bi ñu ak seen njaareem ñëpp xam nañ ni sëñ Moustapha Fall yegsi booba njar la jóge kon loola leeral na lu bari ci li ma mën a leeral ci tànt kookee màqaama moomee mu amoon ak daraja jooju mu amoon lépp ci ginnaaw maam Cheikh Rafal la nekkoon ba keroog bi nga xamee ni sëriñ Modou Moustapha Fall ñoom la ci sëñ Fallu muy li jaaxal Baay Fall yi nag lii may bëgg a wax lu waral mba sëñ moor ja di Baay Fall ba noppi di dem ci mbàkki mbàkki yi danaa ko leeral sëñ Modou Moustapha Fall moo jàpp ci loxob sëriñ moor Dia ca cinquante ci biir saxaar gi jàpp ci loxob sëriñ Fallilu Mbàkke fab loxob sëñ moor Ja teg ko ci loxol sëñ Fallu ni ko ñii fi nekk sëñ moor mii dey seen bàyyi te ma bëgg muy sosi ci yow di liggéey ci yow sëñ Modou Moustapha Fall kon sëriñ moor Ja ba muy topp maam Cheikh na Fall la toppoon liggéeyal ko ba Cheikh Ibra ni ko jërëjëf jërëjëf ja yemu ca joxoon na ko doomam soxna Xadi Fall maam Cheikh ko jur yi joxoon na ko doomam soxna Wuli Fall maam seex a ko jur mooy way juram ak yeneen ak yeneen ak yeneen ci biir waaye it sëñ Modou Sa Fall moomee bi mu nekkee maam Cheikh Ibrahima Fall moom moo jël loxoom teg ko ci doxul sëñ Fallu loolu moo waral baay waa kë waa kër sëriñ Mor ja doon ay baay Fall ba noppi dem di liggéey di yóbbu ci sëriñ Touba ndigalul maam Cheikh Fall la woon sëñ moor ya nekk ak ñoom ci loolu di dund ak ñoom ci loolu ba noppi nag doon puusa ci kër maam Cheikh Ibrahima Fall bari na fi tey jii loo xam ne ci biir kër gi sëñ moor Mor jaafa jaar ba mu mel na mel te waxtaan naa ci sëti maam seex yu bari wax leen loo xam ne ba ma leen ko waxee loola ngan la ci ñoom kon diggante maam Cheikh Ibrahima Fall ak sëriñ Mor ja du woon lenn lu dul ab taalibe ak sëriñam du woon leen lu dul nit ku am ngor ku ànd ak ku am ngor ndax lu tax Fall bi muy ñëw ci sa ci euh, sëñ Mor ji bi muy ñëw ci maam Seera Fall ci sëñ Touba la jëmoon ndax dafa jaar ci sëñ Ibrahima Wadd jaar ci sëñ Muudu Ñaŋ te booba it ci ndigalul sëñ Touba kon la la la fa jaaree ba mu ëgsee ci sëriñ tubaa ci jëmmam fekk sëñ tubaa feesal dell muy ñetti moor ya Baye Mor Diouf Jatti sëriñ moor Ja Njar sëñ Mor Jaa Àndaar mu jël maam sëriñ moor Ja jox ko maam Cheikh Ibrahima loolu leen boole woon ba mu demee di ko liggéeyloo di ko sas ba am at moo xam ne da koo sas sas wu rëy ndax booba du ñun daa juum waaye booba matt la ko doon sas bëgg koo bindal juróomi ko fal jiin nga soppali ko ak faamu doon fukki barigo maam Seera Fall daan ni sëñ Moor bu defee lii lu yàlla def nga leen neex sëñ Moor ja jëkk matal mboolem ñu jox loola la ca xew bari na waaye nit ñi dañoo tàmm léegi loo wax ñu soppeeku neneen waaye la ca xew bari na waaye la mu yanu keroog ko maam Seera Fall yan ba mu dikkee ñu doonul ay sëriñam nga xam ne ñoom la jaar ñoo jëkk a jébbalu ci moom ci sëñ Mor Ja nga xam ne ay sëriñam lañu woon ñoo jëkk a jébbalu ci moom amoon na ci koo xam ne soxna Faat Ñang la tuddoon daa mujjoon santale boppam ja kon sëriñ Mor Ja bi ko sëñ Fallou bi nga xamee ni sëñ Modou Moustapha Fall jox na ko sëñ Fallou sëñ moor Ja da ko ni billaay barkeb sëñ Tuubaa ak Seex Rayma Fall duma wuyoo Mbàkke mukk mukk mukk mukk rus na maa jàkkaarloog Seex di woy lu dul Fall ngor googu nag dafa mel ni moo manqué léegi dangay defar nit ba defee ni yaa ci nekk mu defee ne lam def lépp pexe ma ba fàtte ka ko defaroon loolee nag moom sëñ moo di jikkoowu koon daan am na benn bis sëñ Abdou Xaar Fall ñëw di ko nuyu mu ni sumee mu dem bay summi mbaxana mi ni ko ah yow day doom fàtte woon naa sa baay laa waaye bi laay deret Cheikh Fall laa mënut te gis te teeralu ko te booba sëñ Abdou Xaar ci ci euh, euh, tout tànk la sëñ Sakkour Fall dafa doonoon xaritam lool ba daana ñëw sax sëñ Mor ja am yu mu ko daan jox mu di ko yóbbu benn bis mu dikk nuyoog sëñ bi waaxu dal di jublu ca lal ba bëgg caa toog sëñ Mor ja ni ko carfal ni ko doom toogal ci siis bi billaay sa baay dama laa dénk te sama lal bii ku ci toog doo toog sa lalu baay عليه وسلم وعلى آله وصحبه وخير خديمه إيه، جوهر كلام سليم لا لغو فيه ولا تأثيم إلا إلا الأفاضل والأشياء إيه، قائلا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سنجد tadi من بين di nuyu tàmbale ci sëñ Mbàkke Faal mi nga xam ne mooy bopp yoon wi ci kër sëñ Mbàkke Faal ndax moom la way juróom bu bi wee nekk xalifa di sëñ Seex Cokke yabal ko bal ko délégation bu ñëw fii ci ndigalam sëñ Seex Cokke moomu mooy wut sëñ Mbàkke Faal moom Seex Ibra Faal su ma gisee sëñ Mbàkke dafa am sama xel di dem ci lu ma sama yaay ma wax mu ne mooy bi nga xamee ne maam Assane ki nijaay Assane dafa nelaw li jëkk loolu comme ni ko sëñ Moustapha Seck wax ne daa ñëw seet di maam Cheikh fekk dafa tawat mu ne ko mu ne ko Assane mu ne lu ñaar fi nekk dana ma jaaxal mu ne ko enfant mu ne ko kon bàyyil ma dem ndax yow li ngay saytu boo demee bàyyi man mënu ma ko mën a saytu te boobu ma day soxla doon xaritu sëñ moo taala faal benn bakkan ñoo daan ànd la cay firnde mooy bi sëñ moo taala faal nekkee daaru rahim ñu dëkk daaru xadim saa yu masaan ñëw boolem naguñ fa masa defar day jël ndawal ceeb dawlin joxub doom wéetal ko jox dégg nga moo saan def mu ne da yow lu la Mbàkke war a defal wala Assane Fall war koo defal war naa la koo defal maa la war a defal daal damay jël teg ma ci bii tànk jël beneen doomam nga xam ne boobu ñoo doon maase xaw ma ne mu tudd mu ne mu ne ko samay doom lañ waaw mu ne bañ dencee maam ba nijaasam sëñ Assane Fall ba noppi mu daal di woo taalibe yi xam ne jotoon jëblu ci moom mu leen ne mii de mbàkk mii de gàtt na waaye ma tëb sëriñ de ma tëb sëriñ de wax ko ñetti yoon te di jëblu ci la ko waral mooy suñu mbàkk mii bu ma doon wutu sëriñ te amaguma ko du ko weesu dafa set wecc weex tal di taalibe kese wàcce boppam woyof doy bëgg lu baax di xañ lu baax am kilifa am sëriñam moo ciy dund mu sëñ Mbàkke Fall mii Mbàkke xari joom nag ah, meewam droit la nam soxna Xadi Jóob mooy way juram soxna Xadi Jóob sëñ Asan Jóob mooy way juram sëñ Asan Jóob Seynabu Njaay dëkk bi Njaay mooy woy juram Assane Diop Tafsir Mokhtar Diop mu assisté Cissé mu bari jàmm mooy jëlam Tafsir Mokhtar Massamba Falloo mooy jëlam Falloo nag moo jege woon ndaam ñëw sëy ci bay antaloo bokkam moom na rek bay dem kook yaraloo moo ñëw foofu moo jur Amadou Yàlla maam jaaj moo dem eh, ci la daaraloo moo dem mewlu moo jur sëñ mur jaxate moo jur xaalis ma jaxate kala faalo moomu nag moo ñëw bayti yàlla dogal ma am fa juróomi doom sayar faalo bala faalo demba faalo sayar faalo bala faalo ak xarjata ci la jigéen samba faalo moo am doomam faalo jóob tudde ko yaayam ñu koy wax faalo wala mo mo modem goyar eh, jang am ko ma jang faalo ma jang faalo mo mo jikkono yor soxna aminta loo mooy ta mu am doomam tudde ko yaa muy faalo jang faalo jang moomu dañ jox sañ daaro asan njaay maa ci sañ mbay faalo maanaam nii la sañ mbàkke bokke beneen côté bi mooy soxna xari jóob bokk naa ku ñëw aminta jóob di ko bale sëriñ ñaar ak ku ñuy wax Seydou Diop ak ku ñuy wax Astou Diop bale si ñaan man mu joxoon suñu mën Mbay am kaamal mu nekkoon di da di di jarbaatu sa alaaj eh, eh, mun njaay mu am ca Anta Mbay ak Babacar Mbay si waaw léegi soxna say Diop ñu jox ko eh, bala bala penda ca Tiwaawan moo doon xaali Tiwaawan mu am fa fa xaali Jóob mu tudde ko xaali mu na naar mbir itam dafa am solo ci نجانجل لك كنانا كمان لك خولي باي بي بقدي تسن تبع تنجانجل مولا محمد بري ياغل نكو دغ دا وخني وارخب الاثياء للاموات رد الى الدنيا مع الحياه ولو سوءة فقط ليهملوا سالئة تنفن خفلوا سن تبع نيال ني نك برتاخ دي كل لا دون نجل بغ موي دلو سد دونت بن وقت ولا ген ولا وقت دافا في يالا لوم لا غري غرمي ndax seen kumpa dañu ci def lu loolu tax mu jiital ñaan gi dafa kaddu yi sëñ Tuubaa Sëriñ Fall ci bar sax mu mujj li ci desal mooy sëñ Mbàkke Fall mii nga xam ni moom la ñuy waxtaan jéglal ku bis bii nit ku nekk am na calla gu mbokk ci wàllu ndeeg walla baay boo tuddee Sëriñ Fall tudd sëñ Mbàkke Fall benn gàttuwaay bu gàtt la boo xam ñëpp xam nañ ko waaye néegum ndeyam itam Baye Cheikh Bay tée yi nii xam fi xajee da ci jël càll goo xam ni lu mu ci war a leer dana ko leeral waaye ñii ñuy wax loo xam ni ñépp laa ko yéen sëñ Mbàkke Fall dong dama ne ku ñu tudd lu tudd Cheikh Ibrahima Fall ci sëñ yi càllal boo mën a bokk mën na la koo ba ci àgg ci sëñ dameel bi jëkk si buy monsieur fi ñëw kenn ku ne ko lim ba àgg ba ci Cheikh Fall waaye loolu nag baax na xam sa bopp xam say bokk waaye li ñu ëppal njariñ mooy yéen ñi dama wax ni Cheikh Ibrahima Fall mooy seenum àddunaan li ma jublu ci loolu mooy àddunaan si maam yonent bi salal la bokk waaye booy li mbàgg ci àddina da ngay taxawlu waaye yéen ñu tudd tudd Cheikh Rafal laa xam ne ci jàpp ku ne foo mën a bàyyi ko ci askan ñu la tudd li fee askan bu Cheikh Rafal fa nga bëgg àgg àgguñ faay buñ fàggee buñ la fa yokk ci dara waaye dootu yokk ci ne képp ku ñu tudd tudd maam laa wax ne ci askan wii suñu la leen tudd te àgguñ ci Cheikh Rafal da nga yàkkamti noo ca bokke waaye buñ àgg ci Cheikh Rafal kat buñ ko weesoo ñooñ mën a tudd da nga ca dajew ñoo xam yaa ñoom yéen si cër ba képp mbaa ñu ëppale ca lañ ca doon dong ca doon li ngeen ëppale ñëpp gën na ko ñëpp ku ngeen ko bokkulul mu seen seer faal mi te kay mënu ko kenn li gën na ñëpp ëppale ko laa de mooy seen seer faal mi su ngeen ko weesoo fi ngeen dem yaa yéen ñëpp a yem ca lool kon nag loo xam ne boo ko bokkee ñëpp doo ci ëppale kenn mbaa ñu ëppale ca kon na nga xam ni yéen seen daraja ak seen maqaam ak lépp mooy maam seer faal baal buuri diina sëñ Mbàkke xëy Jóob mii nag mu bokk ci jabar Cheikh Fall daa néegu ndey boo xam ni daa ñuy wax doomi ay e, ñu ñuy tuddee ay doomi soxna la ñu doomi soxna nag boo koy wax mooy ñoo xam ne jàng ak jàngale ak jaamu yàlla bay dunde ñoom rek la ñu leen xamee sëñ Mbàkke xëy Jóob bokk ci ñoo nga xam ni maam Cheikh Fall ban muri ba mu waree dolli këram te ko da ko sàkku ci kër maam Cheikh Jóob mii nga xam ni moo yoroon soxna Xari Jóob mii di way jur sëñ Mbakke daa ñëw waxtaan ceeg moom maam Seer Jóob ni ko doom yi kat sama mag ba seen Jóob moo jur waaye sëñ Tuubaa leen dénkoon kon nag ma dem waxtaan ceeg sëriñ Tuubaa maam Seer dem ci sëriñ Tuubaa waxtaan ceeg moom ci tàkku Seer Faal googi mu ni ko soo demee waa kër tafsir Maxtaar Jóob ñooñu maa Useen Jóob jur leen tafsir Maxtaar Jóob jur leen nitu alxuraan lañu alxuraan lañu leen di cane maam seer ñu wax ko Cheikh Fall Cheikh Fall bindulu ñaari kaamil ñaari kaamil yooyu mu ñëwee jox ko maam seer maam seer dalu sëñ jox ko ko sëñ Touba te ñaari kaamil naggal nu ko bu yàgg te benn kaamil bi delloo maam seer benn kaamil ni ko boo demee ko jox soxna Khadija nañ ko jox Cheikh Fall xari la ñuy wax waaye Khadija la mooy tur wi sëñ Touba bi soxna Khadija moom nañ ko jox Cheikh Fall li ma waxoon léegi ne doomi soxna nag koo xam ne kii alxuraan la ñu tere sa way jur bu jigéen te seen yonent bi salaam yi xam ne yonent bi ci li ñu roy lépp ci baax si mën ko jële mu ji saatam bi gën a rëy mu ji saatam bi gën a rëy mooy alxuraan moo tax bi mu ñëwee itam indi ko sëñ Tuubaa bi ko fa doon ci arfan bi arfan bi mu ñëwee daa wax ni samay mu ji saat samay dentak samay ndàmb ak sama sama sama koom yëpp mooy alxuraan kam si kitaabu wala hadiis wala adab laa jam fidati wala jamu saam ne sama ndàmb sëñ Tuubaa de mooy du wurus du xaalis du ay jur ay denc mooy alxuraan ak waxi ay yonent bi sallallahu ak a sallam xam-xamu àdd bi xam ne ku defar ci nga defar lool kon nag ku ñu wax ne doomi a nga alxuraan di sa can boo xam ne sa wajjur moo ko indi nga doon ne sëñ Tuubaa léegi si doon jële ko ci yonent bi kon du ñu wax doon sax lu baax lu baax ku nekk sëñ Mbàkke Faal lu koy tudd képp ku ñu tudd ku baax mënoon naa jox kàddu gi mënoon na maa jox kàddu gi ba Cheikh Bay si mii léegi màgg li ma wax ci càllal gi sama jarbaat bee di Maam Mor Seck xam ne historien international la xam-xam bari na xam ne bu ñu doon tudd ci réew mi lu fi waay baax le càllal gu fi mën a am ak lu mu sell sell da wax ne mbokk Sëñ Mbàkke Faal ak si baram bu leen boole waaye loolu taxu noo jóg li ma wax léegi te di ci delluwaat mooy mën ngaa lim ba ci aboo daal daal ñoom Sëñ Mbàkke Faal bokk ñëpp ci wàllu askan waaye li ngeen gën la ñëpp ëppale ko ñëpp te ku leen ko bokk ko ku leen ko bokkul yéen ko gën le mooy Cheikh Rafal jëlu koy romb jëm fenn kon sëñ Xaadim kaddu gaa moom Baye Cheikh Béyti càllal ak